amaan nañu mbégte euh, euh, chaque dimanche bu njot ñu ñëw fii ci arène nationale euh, fekk ci ci nga xam ne mooy promoteur yi waaye tey dañoo ñëw ci arène national fekk fi promoteur boo xam ci nii bu tëggee mu neex muy Mansour nga xam ne làmbam amul coono nga xam ne làmbam dina dina neex mais dina dina am lu ne dina am ambiance tey moo ñu fi woo Mansour Ba moo ñu fi woo dox ci diggante ki nga xam si ni moom mooy Ada Fass ak Zos maa ngi taxaw ak suma xarit Lat Diop tey ñoo ngi fii ci arène nationale Lat Diop ñoo ngi fii ci arène nationale comme ni ko waxee di nuyu Sénégal di nuyu monde entier di nuyu ki nga xam ne ñu ngi seetaan leeral TV di télé bu mag boobu. nga xam ne lu mu baaxul. Fallou comme ni ko waxee maa ngi nuyu caméraman bu mag bi. Augustin Augustin kenn du moom. Augustin Ka lu wul baaxul. non moo def lu mel nii. naanaan la kenn du moom. Fallou comme ni ko waxee Ada Fass ak Zos moo ñu indi fii jàmbaar production moo ñu fi woon. te mhm. jàmbaar dañuy ay jàmbaar lañ moo tax bu ñu wootee mu war mel ni Fallou boo xoolee sama ginnaaw rang bi ngi toll fii ba fii taliba ba fii nii rang bi kenn xamul fooy xaj diggante Ada Fass ak Zoss làmb ji bëri coow lool ñu waaj ko waajaat ko coow li bëri Ada Fass Zoss Ada Fass Zoss ba démb ci guddi yi lu bëri am ñu ni combat bi dina am ak du am tey nga ñëw stade fekk mu mel ni Fallou loolu moo lay wan mais mais mais ku xool Zoss démb ak ñun de nekkoon nañ fa ba 3 heures du matin. maa nga foon ba 3 heures du matin juste ko rek pour jox euh, ñi nga xam ñoom ñooy seetaan leeral TV leeral point jox leen xibaar yi wóor leer wax leen li nga xam ne yi nga xam ne si nga nga xam si ne soog bi nga xamante woon aada euh, Zos moom la am fii ci Malibu bi mais euh, dem nañ ba mujj gi euh, gis nañu ki nga xam si moom mooy docteur bi nee na aada Zos dara jotu ko mën na dem bëre ji. mais Fallou comme ni nga ko waxee làmb dafa yéeme làmb dafa nekk loo xam ne tey lu garaaw la mën na waaj ba bis bi sax ñu am loo xam ne mën nañ ko koo tegtaloo mu dañ ci moom. may maanaam sos préparé na ba veewu làmb ji mu dem di am fu muy génn def sooteem def soog soog bu ndaw yow wax nga ko demoon nga dem hôpital yaa ngi fa woon dalal jàmm yàgg nga fa xam nga lu fa nekk leer na yow aada bu sos bu xëyee dina bëre aada tamit bàyyiwul. parce que boo xoolee démb. non aada aada du mën a bàyyi. bàyyiwul parce que aada parce que aada le retour de aada. parce que bu ñu xoolee arène nationale ni mu mel nii parce que waa aada Fass yi bari nañ fi. Ndakaaru Ndakaaru Jal Joob Sangomar bi bari nañ fi. parce que aada Fass bi mu yëgee ne Zos am na blessure teewul moom bàyyiwul ay sangatam. Fallou Fallou ma xamal leen. am na luñ ma day de aada dafa dëkk dëkk boo xam ne goxul làmb la ku ni Fass xam ne làmb yàgg na faa am. mais la Diop xam nga nu def xam nga la Diop nañu def noonu maag yow mais tey ma xamal leen. waaw da ngay jaar ni ma jaar ne. Ah. leeral TV dara du yomb. mais mais Lat Diop yaa ngi leeral FM de. mais man yaa ngi leeral TV. maa ngi ci télé bu mag bi de. yaa ngi ci télé maa ngi télé bu mag bi de. dañu bu télé mais mais yëngali xew. sponsor bu mag bi. ñëw na muy Tramoto moo ngi ci moo ngi ci eh. biir émission faqat na ko Sénégal yëpp xaar. Tramoto Tramoto borom moto yi. lu yéeme Tramoto ku mu jaayul moto baaxul. ñu ak yow ñu ak yow ñun ak yow ba géej gi fer. bul am lu la metti kese ñëw ma fi nga war a ñëw muy leeral TV ak leeral rajo. Ladjo maa ngi lay fekk ci biir. Fallou maa ngi lay fekk ci biir bu ko defee ma ànd ak Augustin dugg ci biir xool jàmbaar yi waaye dugg ci biir xool ñi nga xam si ne ñoom ñooy amateurs yi parce que lamb buñ ko waxee amateur la wax tax lamb buñ ko waxee supporter yee tax ñuy daj lu métti xoolal rang bi. ay jàmbaar doo nga fi nekk xoolal rang bi nu mu méttee rang bi nu mu tàngee mais gaa yaa ngi jaayante pour dugg ci biir Augustin let's go maa ngi yow dañuy ànd ci biir maa yow la sama njaago or njaago or benn la fi Augustin la. ñu dem. rang bi tàng na. trop sax metti na. trop ku ko jaar. faas aada faas. gannaaw rang bi tàng na ku ko jaar. waaw nu booy buubaa. ah booy buubaa bu. booy buubaa waaw waaw. ba noonu la demee gars yi Augustin Ka. gannaaw maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay delloo si. man Joona Sël. Joona bi Sël. bilaa walaay. Joona bi Sël. Joona bi kese. bari bari bari bari bari bari. bari bari. bari bari. xale yaa ngi noonu so noonu lay demee. mais grand lii dafa rafet de Augustin jëlal ma lii. so Ada Fass rek la ñuy toog so sama koy tuur mu daanu. bu am sa mbër na ko téye aare. kii Amadou Bamba Zos day xaar. waaw mais booy bàyyi leen sama naa ko. Zos Zos démb da doon da doon da doon. Ada ko doomu Dakar doomu dëkk bi la. doomu dëkk bi. Ada Fass du trahir. doomu Fass du trahir. du trahir mafia. Fass ñu dëkk du trahir. mais Ada Fass. Ada. ay nga jënd glace yow. ay ngay wax ngay ragal noonu. mais maa ngi lay siyaar. da la siyaar. koo leen di topp. aada oh, kese. booy koo leen di topp. Ah, booy koo leen di topp. Ah, non kese. nga yow koy topp. sama yaay kese laay <laughs> Jal Diop. Jal Diop Sakko maa. bi aada. aada bu am na nga ko téye aada paase. grand. waaw ba yee de. Euh. musuñ tiit gars yi moo ngi noonu arène nationale Mansour Ba moo ñu fi woo le grands promoteurs ñu xool ci kaw amateurs yi nga xam si tamit Augustin amateurs yi nga xam si tamit ñu gis ngeen rang bi gis ngeen rang bi nu mu demee gis ngeen rang bi gars yaa ngi dugg ci ci biir ah gis ngeen rang bi nu mu demee mais xool Augustin ma ragalu ma noonu nii laay jaaree nii laay jaar dugg ci biir ñànkatang bi ñëwal Augustin ñëwal. mais gars yi lan mooy seen problème leen tee dugg. waaw alkaara ñooy bëgg ñooy bëgg mais wax leen def leen ndànk rek grand def leen ndànk rek ñu géem ko quoi dégg ngeen grand lan mooy problème bi. alkaara ñooy ñooy bëgg a rey fii nii dañu bëgg dañu bëgg a taxaw jën tëgg sax du ñu may ñu dóor waaw ma ñu jën tëgg alkaara ñoo la fi teg xool dañoo dóor ma ñu bëgg a te la fi ah yow lii dóor la. waaw lii yoon. oh métti na de. te day na ñëw pour jënd. xool booy bi. booy booy kaay. lii yëpp day na ñëw pour jënd ticket ñu def leen lii ah. ah ndeysaan gars yi gars yi nañu jàppale euh, euh, euh, Augustin nañu jàppale ndaw ñi nañu jàppale xale yi parce que dañuy ñëw ci stade pour jënd billet pour dugg ci biir seetaan supporter seen ba dem seen yoon il fallait que sécurité bi nañ si gën a jàpp. nañu gën a veillé ci xale yi nga xam si ni bu dul ñoom làmb du am parce que ñoom ñoo tax gars yi di ñafe pour di ñëw ci làmb mais gars yi nañ ko jàpp waaye ca noonu lay demee. Leral TV la ñuy wax mais jàmbaar ji lan la. dara du dara. ah ma taxaw nii waaw ma rek. ma tëggat ba affaire bu xat trop. affaire bu xat trop mais xaaral tuuti. gars yi bàyyi leen ma liggéey waay. danaa la mooy problème bi. mais dañoo ñëw ba esaat. bee ñuy jaayee 2500 ñu koy jaayee 3000. 3500 3000. waaw jël ma ñuy dóor bu muy bàyyi ñuy dóor bu muy. tamit nañ bàyyi ñuy dóor. dóor daa métti. waaw loolu loolu yoon. ma ñëw ma ñëw. ticket leen amul lu xew ticket leen amul ticket. mais eh, doo jënd ticket bu seer ba pare nga. ba damay jaay sama ticket jënd ticket. waaye mais jaayal ticket. waaw loolu la ñuy def. Eh. jaay ticket bi dugg. aada jaral na la ko. aada moo ñu ko jaral. aada lañu toog ah, ñun su ragalee tooñ. jeex na. grand lan la looy taxaw fii. non man Ndakaaru moo fi indi. billaay mais bàyyi stade bi ne la ñëw ba fii ci biir digg ñànkatang bi taxaw lan la. ma dama gaare sama mboota nii quoi. di xaar ni ticket yi ñëw quoi. jeex na. mais jàmbaar ji. bëggee waa gaan fii ci la ne. naa waaw lépp jàmm. naka la. naas kay. mais tey noole leen waa waaw bilaay gilaay bilaay walaay walaay gaan ñëwee lu am doole baay. ñëwee lu am doole. nga ah bilaay walaay mais loolu faas la jëm faas. dañuy ah. dugg léegi dañuy dugg léegi. dañuy dugg léegi jos day xaar lu bëri doole. dañuy topp lu ko benke ñeenkewu ko. la ko benke ñeenkewu ko. la ko korte ñeenkewu ko. Ndakaaru seul. ci digg ñànkatang bi ragaluma loolu ragaluma loolu mais xam nga tey nu mu demee bisu tey jii bisu tey dafa nekk bis bu garaaw ma fi may ñëw gars duñ fa geebee maa ngi si digg ñànkatang bi mais nan la demee noonu. nu mu demee comme noonu bis bi. ah nañ def nànk rek. noonu la demee piano piano rek. noonu sa pain am sa yaa sa lapin. noonu la demee ba sëñ Ba ma gi naan sa suupu yoo. loolu teg sa bopp noonu. waaw laaj nañ na ko. Dakar jëm ñaajo bi day daw. nga ne suupu yoo. noonu la demee. mafia baari baari baa ngi nii xale yaa ngi nii baari baari waa jàmbaar fii la ñuy eh, fii la moto yi di duggee parce que bu njëkk moto yi dañ daan duggee fële ci pot côté pot bële di yàqal ñi nga xam ne ñoom ñooy dugg tamit parce que dañoo bëgg boole di boole oto yi ak moto yi loolu c'est impossible léegi nag jàmbaar dafa ñëw teg stratégie bu doy waar moto yi fu ñuy duggee ak oto yi fu ñuy duggee wute na mais gis nga jàmbaar yaa ngi noonu amateur yaa ngi doon bu làmb neexee ñii la. nga lan yow. Seul nga ne lan. Ndakaaru ñuy topp. Ndakaaru kese. Ndakaaru kese. ñuy nuyu sécurité bi macha allah am na solo trop li fi nekk sécurité kenn xamul nu mu toll. gannaaw maa ngi lay nuyu. ci loo ne. sant yàlla bu baax bi naka la. ah Adama. yéen a yor euh, sécurité moto yi fi ñun waaw. moto ñaata la. moto non ça dépend loo yore rek. loo yore rek. waaw. Ah. waaw mais euh, liggéey bi. Hmm. yomb na. liggéey bi non liggéey moom yombul moom. liggéey moom fu mu trop. daal lii dafa daa xaw a xaw a doy waar quoi xam nga. risque la daal risque la daal lu métti kay yàlla xam ne loolu yàlla yàlla yàlla mu ñu suturaal nag yàlla baax jërëjëf maa lay siyaar. na yàlla nangu siyaar. amiin maagal di la siyaar. barke Serigne Bamba Mbacké waaw man Ada Fass moo ma tax a ñëw si tay si laama ji. waaw champion la jàmbaar la. tarki ndaa laa nag mais yàlla mooy def gis bëgg quoi Ada Fass champion te yàlla na ko yàlla may ndam si kaw Zoss. jërëjëf Serigne Touba leen jaamu. jërëjëf. amiin waay. taalibe Serigne Bamba baa ngi nii di waajoo xam ne jàmbaar la ñu bokk liggéey bi mais lépp moo ngi koy rafetal lépp moo ngi koy teg ci yoon ñun topp ñu kenn Serigne bàmba rek la ñuy topp topp ñu keneen ku am leen na ko téye mais kii Baye Fall la mu bokk ci làmb de xale boo xam ne wax dëgg yàlla tubaarkàlla loxo bu set la yor mais day daw rek du mbay amul arrêt day daw rek waaw amul arrêt Mamadou mbay tey bisu tey ji waa bis bu neex bis bu rëy bis bu baax ci làmb bis buy yokku làmb bis buy tijji làmb bis buy tax làmb wane waat yeneen xar kanam macha allah waaw noo gisee tey dugg si Ada mu teel lool ci biir làmb dafa teel a ñëw waaw yoon la day wane ni daa bëgg bés bi daa am lu mu ci bëgg daa am lu mu ci nar daa am nu mu war a ñëwee am nu mu war a defee loolu moo ko war teel na ñëw mais na toog concentré wu nekk ci boppam nekk ci bésam bàyyi xel bis bi bàyyi xel li ko bis bi mën a may bàyyi xel fi ko bis bi mën a yóbbu bis bi tey daa rëy ci moom bu ko daanee mën na làmbam tijjeeku na day dem ci kaw kenn du ko bu teree bëri ñi ci kaw dafa la bokk. ba nga déggee démb Zos ñu jàllale information boo xam si ni ni ñu ko jàllalee baaxul. ba tey yàlla def na zos. làmb moo bari ñu soxor. Mhm. làmb bari ñu soxor. ñoo xamante ne duñ dem duñ bàyyi kenn dem. doom Mansour Ba doomu Sénégal la liggéey am ba mu toll su fii ku ne di génn naan làmb ji day am làmb ji doo am ñu naan jos daal di daal lee làmb ñoo soxor milieu làmb dañu yéeneente jàmm xam-xam moo ñàkk yéeneente jàmm moo tax làmb du avancé dañu yéeneente jàmm nañ bëggante boo nekkul ci événement ñaanal événement bi sotti waaye lekkuma ci cere ji rek dama ciy xëpp suuf loolu baax am na cere yoo xam boo ci xëppee suu sa ba tey fatu yow nga ne. waaw am na ci xamante ni boo ci xëppee suuf yow la sa bët di fattu te yow sa cere du àgg. loolu lay demee ñu gis taxawaay bi nga xam ci ni euh, Mansour Ba def na ko ci démb nekk na fa ba 3 heures 3 heures moyen Mansour Ba liggéey ci liggéey bu am solo taxawu zos taxawaay bu am solo kon mbokk yi gars yi waxtaan ak Fadam ndax ku baax lan daanaan la. Fadam maa ngi la fekk nga taxaw ak sa mag parce que ni nga ko cottee nii xam naa ne da nga koo bëgg. ah ñu ko. kii day sama kilifa dëkk Parcelles Assainies nekk styliste bu mag ca Paris. Hmm? waaw yaakaar naa ne di ko xam ne nii lamb rek ko mën a yëkkati. lu ne day am Sénégal du génn fi muy nekk waaye làmb rek ay am mu dagg bi avion ñëw seetaan see lamb bu pare delluwaat. kon Sénégal nañ gën a fonkaat làmb nañ ko gën a jàppaat culture bi dafa am lu ci nekk. lu ci nekk lu ci nekk mooy lu ñu war a fooyee ndax réew mënta dem sans culture réew mënta dem sans aada ak cosaan te tey jii bu fekkoon ne dañoo dajale woon ay ay nationalité ñu indi leen ci réew mi. benn culture lañ leen mën a présenté muy làmb. buñ ko def buñ ko moyoo dañuy dem ci culture joolaa yi. dem seeti mandenk dem seeti tukulóor yi. dem seeti ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. dem séeréer si waaye séeréer si boo leen demee ci lamb la ñuy indi culture baa ngi nii musée baa ngi nii moo tax arène nationale bii war nañ fay def musée mbéy gi yëre yam daan sol ñu def ko solo ko benn nit papa kan bu caaree lam daan sol ñu solo ko benn nit. Mhm. le roi des arènes Manga 2 ñu solo ko lu ñu solo nit. Yéhi Jub Yékini indi lam daan solo. Mouhamed Ndao Tyson indi drapeau bu mu doon Amérique bu mu doon sol loolu dafa war a am ci làmb ndax tey ji bu ñëwee seetaan làmb ba pare war naa seetaan musée bi xool dagg ticket dugg ci biir musée bi. rawatina sunu mbokki eh, tubaab yi nga xam si ne ñoom ñoo fii ñëw nga xam ne chaque jour dañuy ñëw ci làmb. war na ñoo dugg ci musée bi. culture bi dañ koy topp te làmb nekkul lu ñu war a fooyee te ku mel nii billaahi boo ko fekkee fa liggéey bi bitim réew di nga xam ne ko tubaab yi nawloo ngi nii waaye lamb bu ñëwee day so chemise bu oyof ñëw seetaan si lamb culture bee ko gën a lu mën a am. balaa maa ñëw ci yow foofu maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziare. présenté wu. Euh, Mor Mbuub laa tudd kii sama xarit la nit ku baax la Fadam li mu wax lépp ci man ci moom la ne. mais am na solo daal euh, donc li ci am solo mooy euh, nan gën a fonkaat mbir yi nan gën a fonkaat suñu culture comme ni mu ko waxee sa xam ni ñun làmb rek la ñu am. c'est làmb moom dafa nekk loo xam ne lii dafa li ci nekk dafa doy dafa yéeme mais yal nañu yàlla boole. jërëjëf papa bis bi coow li démb. bari teewul nga ànd ak dal. ànd ak yar. te bis bi tey ñu si doon wax yëpp du am. sos du bëree. xam na làmb moom mu baaxoo coow mais boo joxee information moom buñ la dégg rek teel na damm na man bi ñuy waxee laa li ay feem la. Ada Fass bu am bu dee am na staff na xool bagage yu mujj yi dajale ñëw xam ne Zoss moom màggatum ko roccal la lu mu guddi guddi guddi sama xel dafa ne kii lu mu guddi guddi guddi day bëre si ndax sañ sañ sañ sañ ca bàyyi occasion mel ni du ko bëre mais coono bi nga daj démb taxawu Zoss yow ak Mansour ak staff bi yëpp mais c'est normal tey jii euh, bu dara dul dara moo leen toog suñu kër mais boo sekkee ak nit rek nga dégg ne dara dal na ko ak lu mënti xew demal nga jege ko xool lan la naka la ak nan lay demee après des itam ñu bàyyi ko si loxo su yàlla suñu borom. naa la bàyyi nga dem ci liggéey rafet na mais Fadam. waaw euh, coow li démb nga xam ne bari na ñoo xam ne dañuy yàq bis yu mel nii. Mhm. bisu Mansour Ba te mu doon xale boo xam ne dafa bokk ci réew mi. Mhm. te xale boo xamante ni réew mi ko ñor. Mhm. est-ce que bisam am na kenn koo xam ne war nga jël sa micro nga ci wax lenn lu ñaaw. waaw xam nga tey jii làmb dafa am ñoo xam ne nii en général dañoo nekk ci làmb te ci occasion yi mel noonu la ñuy basé wu pour mën a am yenn vie yi. pour mën a am tamit tur. waaw pour mën a am tur léegi nag ci pour loolu mën a am bu fekkee waxtaanee lamb rek comme ni ngay def ci sa plateau bay def toog waxtaanee lamb réalité lamb am ci ay vie am na ñoo xam ne sens contraire bi lañ mën a taxawee coow am ci làmb wala dara am ci làmb ñu profité ci wax ci loo xam ne tey day tax seeni i chaîne yéeg ci yenn vie yi te loolu en général li yàq làmb la lamb amul lu ñaaw culture la boo xam ne ñun ñoo ko moom. te lépp lu ñu ciy wax ak lépp luñ ciy def du ñu lu waay di wuyoo da ko war a niroo ñu yor ko mu nekk loo xam ne lu rafet lay doon te lii ma lay wax déglu baax li ma lay wax arène nationale bi tey je sais que Ada gis loo mës a gis ci làmb. nga ne. stade baa ngi fees dell. fees la. stade baa ngi fees dell xale yaa ngi dagg di ñëw boo xoolee rang bi heure bii ci ban heure ah yaa ngi ci 17 heures 12 minutes rang baa ngi romb ba ca rond ba kon xam nga ne làmb gars yi bëgg nañ ko kon tey ji fi làmb jëm rek mooy ñu ngi fi Mansour Ba ak képp koo xam yaa ngi ci wàllu làmb ñu ngi leen di ñaanal jàmm bés bi am réussite totale lépp lu mu ci defoon suñu borom dolli ko lu ko ci mais ma lay ñaanal jàmm ah. jàmm ci yow. ma lay ñaanal jàmm kenn du yow. Siteu la dageer. Oh. Oh. li ma jaaxal rek mooy Siteu indi nañu séeréer bi indi ñu yalmin bi lan la ñu war a indilaat moom ma jaaxal. man de indil ñu borom dëkk bi. Siteu la fan la war a génnaat. moo ñu jaaxal moo tax mu dencu. nëbbatu bi nit Siteu moo ko war doo ma bàyyi moo ko war. ki muy bëreel ndaran ki muy bëreel ndaran yëpp essayé nañ jàlluñu kuy làmb lu ñëpp làmb tële ca da ngaa war a kenn làqatoon. jërëjëf dégg ngeen ko kookoy Fadam expérience am ci làmb ñëpp xam nañu ko kàddoom ci làmb ñëpp xam nañu ko mais tamit dégg ngeen Modou Mbaye kàddu yi mu wax mbokk yi Augustin la àndal njaago or nee naa leen njaago yi fi nekk yëpp Augustin ka bi mooy njaago or man moom laa gëm. moo sama taxawaay fi yor organisation bi rek xam nga waa jàmbaar maa yor seen tey jii bu ñu tëggee war nañu mën a accompagner leen ko moo tax sama taxawaay fii yow xam ngeen ne promoteur yëpp samay waay lan. non loolu yow da ngay liggéey ak ñëpp. waaw ñoo ñëpp samay waay lan. Mansour moom dafa nit koo xam ne kenn la si man mook assurance. kenn la si ñun. non non man laa wax. mais booy da ngay daw rek. man Papa Gueye ngi noonu day daw man moom laay wax man assurance. ah Mansour baax saw non. jàmbaar staff yëpp ñëpp a baax. moo tax tey seen bis bi ñëpp si war a taxaw. barki yonent bi jërëjëf waaw jaajëf waay mais promoteur bi Zos mais mais Ada Fass fan euh, mu ngi fii à Bari Bari mu ngi fii Bari mu ngi fi Bari Bari nii la waaw mais bi hmm. waaw bëgg yi yomb rek gis xoolal tey ah? la te xoolal ni mu yaatoo ku ñëw raat ndànk dugg ndànk mu am espace boo ko mu neex Ada Fass tëggoon fi mu doy waar tëggoon nga fi mu neex tëggoon nga fi coow li topp la tey fan nga jëm. waaw maa ngi di préparé le 17 décembre incha allah diggante Zarko ak Diène Kairé. nga ne. maa ngi préparé ginnaaw bu ñu génnee si combat euh, Zos ak Ada Fass bi incha allah eh Ada Fass eh nii la. mais loolu dañ ci waxtaan parce que xam naa ne <laughs> xam naa ne dafa occupé quoi mais promoteur bu garaaw a ngi <laughs> waaw waaw loolu yéena ko fa am dama sayax mu naan kàkku si Zoss ñëw ñëw làmb ci Zoss fii ci arène nationale c'est la première fois mu mu deuxième fois mu ñëw ci arène nationale mais le retour de Zoss la mais dina doy waa trop le retour de Zoss dina doy waar trop trop trop trop waaye kañ lay dayanteel borom Ndakaaru jël joob sangomar bi mooy Ada Fass nañu xool ci biir lu fa am. nga ne lan. waaw kon volé wu ñu suuf suñu. kan mooy ah, volé. kay xam nañ kan ndaw du nelaw guddi. waaw doo ko ah, ah, la war a bëreel ñun. la war a bëreel du sos. na jël ay moroomam. jigéen ñi lay géem quoi morom. mënul géem jigéen ñi lay géem jigéen ñi. Ada Fass ñi lay géem moom jigéen ñi. bandi wóola. bandi wóola du bandi géew bandi wóola bu ñu duggee dinañ ko ko wan. fan su fan ngeen teg na bandi woo la. bandi woo bàyyi suuf si. aada na bàyyi suuf si. suuf na ko baax. suuf si la bandi woo. suuf si du dërëm suuf si mooy doomi na ko na bàyyi suuf day. day aada day forcé. maa raw. man dama la gëj a sa digganteeg waaw. pare woon nga mais abu Ndiassé euh, euh, mujjut a ñëw. billaahi mais yàlla baax na xam nga moom jaam ak pexe bi yàlla ak dogalam. instant dañ koy ñaanal wér rek mu ñëw ñu remplir suru contrat le 9. noo indee tey Zos. Zos dañ koy ñaanal suturo rek instant yi moom wax dëgg yàlla lépp lu ñuy laaj ci làmb rek moom def na ko quoi waaw. yàlla nag moo yor ndam quoi dañuy ñaan yàlla suturaal ñu may. mais xale bi muy bëreel garaaw na de. non loolu du fee loolu du problème. loolu du fee. loolu du problème. jeex xam nga góor moom boo ñemewul da ngay neex a bëreel. Ndakaaroo ngi noonu xale baa ngi noonu li roogoo tey bari na tàpp na bopp bi aada yëngal na bopp bi dongali na de e eh, aada Fass Zos na dawam yaa ngoog yëfam la moo ko moom moo gis topp ko yëfam la moo ko moom ana Ndakaaroo ngi noonu waa Parcelles yëpp ëmb nañ ko ndeysaan soso ngi noonu yor na benn bal balu la yor balu po Fatma Dial nax sos nax sos tey daa ñëw pour nawet exe mais coow li bari na de exe Zos a Zos ñëw na de Fatma Dia ndeysaanam ànd nag waa Parcelles yëpp ko ëmb indi ko ñoom Goro Sock Giro Baalo ñëpp ko ëmb indi ko laa ilaaha illallah Zos mi daa nar a di hey Zos waay tar xolama borom leget ba lépp ak ca biir ndeysaan Zos maa ngi gis ñang baaw Anaconda xeexe Bamba Milano maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Lat Diop sama xarit sama doom nday juróom ñu jula nga jógee Italie ñëw waaw jógee Italie ñëw la pour jàpp si dat parce que ñun làmb daf ñoo jaral ana waa Mina waa Mina ñoo ngi fa ñoom ñëpp a ngi waaj nag décembre ñu lu garaaw mais tey nga ñëw indil ñu bis bu mag décembre ngeen indil indi ñu làmb joo xam ne ay xale si bëri bëri na kan kan nga boole. tey jii booy xoolee su ma jëlee su ma demee ba Pikine jël Ndiaga boole ko ki nga xamante ne moom mooy Kara Dollé mais yàlla dafa def ni nag grand combat bi ca desee dugg ku si ni Kara Dollé dégg maanaam boo ñëw nañ pour taxawal làmb ji décembre moom mi nii fii décembre du mën a pare parce que dafa amoon malaat entraîné wul benn yoon ñu nangul ko ko nag wax dëgg fa mais li nga xamante ne nii joxoon nañ ko ko waaw nañu ko delloo la si nga teg ñu gis nga nar liggéey ñu lu bari. non Leral TV dafa nekk télé boo xamante ne wax dëgg fa yàlla euh, am na solo daal li ñuy liggéey rafet na trop te ñun xale yi suñ xel da see nekk quoi te ñaan nañ yàlla ànd ak yéen liggéey si lu ne nekk waaw duñ liggéey sax si laamu kese mais dinañ liggéey leneen loo xamante ne loolu laamu kese. jërëjëf. arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak lim bañ wax na ak Zizi nee na ko pare na arbitre bi na. combat baa ngi noonu dox ci diggante Bébé Waly ak Mbool ndeysaan Bébé Waly ak Mbool ñaari xale yaa ci digg bi se xale yi lewtoo nañ ndax dañuy xeex ah seen taxawaay taxawaay xeex la may la may nduru nii Bébé Waly day xeex de waaw Bébé Waly boo xoolee ni bu taxawee daa nar xeex mais Mbool dafa nar a yooru songu ñaari xale yaa ngi ci digg géew bi diggante Bébé Waly ak Mbool ndeysaan saan ñammi moo leen boole moo tax damay defaraat sama taxawaay waaye Seex kii ma taxawal sama jarbaat la saanam Bébé Waly ak Mbool oho Bébé Waly ak Mbool jël na ko Bébé Waly jël na ko luy xew daan na ko dafa mën a bëre Bébé Waly daan na Mbool waaye papa yi maa ngi lay nuyu ndeysaan Bébé la bërekat la deux combats deux victoires te même jël ñaar jëlam yëpp top la moo fi indi lale moom Bébé Waly benn baraag la dëkk daanaan la mbokkam ndeyu Seex Bosoor bi daan na oh waay waay Bébé Waly waay. deux combats deux victoires te même jël ñaar top 5 la. Mbër nuyu naa la. waaw waaw fay naa la. li loo nekk. sant yàlla. lu bis bi laaj. waaw bis bi tey rek la laaj lu xees. waaw man de laay est-ce que xam nga bu ma ko def. mu daal. te dina yomb. dóor mu daal. nee na boo xeexee mu dóor la nga daanu boo bëree mu jàngal. dóor mu daanu incha allah. bu la ci gën a xeex ak ci gën a. dóor mu daanu bu soobee yàlla. dóor mu daanu. yaa ko wax. waaw leer ci kanam. waaw ndeysaan mi ngi noonu. xale baayu noonu. rek lan ngeen indi rek ak concentration. soo champion. yàlla kon baax na noonu la demee tey waa Fass yi def tek nee nañ wax ak kenn ku dugg seen ñun la baax waaye tey lépp dina leer fii topp ma ñu dem sama naamali yaa mën yaa bu doole ak Leral TV léppay leer noonu la demee. arbitre bi waxaan naa ñoom lu naamu nangu lu arbitre suuf la na diggante Papa Sow Bébé Dialy ah kii day mbapat de Papa Sow day mbapat de Papa Sow Bébé Dialy mais kuuba xëxë Cheikh arbitre daa soufflé rek Papa Sow songu ndax ndax mbapat kat la. ah daa mel ni loolu wóor wóor na ko de. songu na de eh fàq na ko xew jël na ko laay laaxi la la luy xew daanagul de xale yi bëre kat lañ de xëxë xew Papa Sow bébé jëli war na ko nomba penalty la bébé jëli rookos si suuf bébé jëli Papa Sow laay laaxi la la ma ngay dóor ma ngay dóor daan na ko jeex daan na ko mais xase ma xale bi lu mu ci mbooloo. moom Bébé Dialy. ndaanaan la xale bi xale bi mobilisé xoolal xale bi lu ministère. bëgg naa xale bi mobilisé waaw la. laamu dalay faral. Eh, eh. waaye Bébé Dialy waay Bébé Dialy daan na ko jël bu rëy. dëgg la bi suuf la na eh Papa Bari Bari Bébé Modou Papa Bari Bari ñaari xale yaa ngi Papa Bari Bari Bébé Modou Lo eh Papa Bari Bari mbooloom bari la fi indi digganteem ak la xale yi jàppante nañ Papa Bari Bari Bébé Modou Lo ndeysaan ñaari xale yaa ci digg géew bi hey rof na ko tànk caxabal lan mooy xew daan na ko laa ilaaha illallaah waaye xoolal ma xale bi la muy déglu jël bi rëy na. jël bu rëy la ko daan jël bi rëy na. da ko rof caxabal wéeru. xale bi dafa bari mbooloo. papa bari bari la. xale bi dafa bari mbooloo. bari bari bari. ay papa. bari bbari. ay papa. bari bari. kuñ jëm ak moom. bari bari rek. bari bari. mais xale bee ngi jeexal xale bari bari. mi ngi jeexal xale dina leen jeexal. moo ba léegi ma nga ci dina leen jeexal. mais sax bu làmb day gën a mobiliser. moo leen mën. xoolal ma la mini moo leen ëpp doole. waay waay papa bari bari waay moo leen ëpp mbooloo. na ko làmb bàyyi xel. rof na caxabal bébé Modou Lo moo ko man daan ko jël bu rëy moo ko ëpp doole. oho ko bari mbooloo doole yamuñu doole yamul. dixième combat dixième victoire incha lañ may soo xam. dafa eh, bari bari xale yi. waaw gis nga ay. ñii sa diggante ak ñoom la. lu yàgg la dañ ko dund maa ñoom. barki Serigne Bamba. mais mooy ñoom boo xam a. bilaay dañ ko dund maa ñoom. ñoom lu yàgg la. secret bari bari lan la. entraînement. entraînement lu métti. gars yi nee na ñu ngi bëre yàlla doole foo jëm. demeewul noonu maa moom contrat bu yàgg ah sama loxo moo damboon. daa fu la demee ay mbir yaa war gis nga de non yàggul sax. dama njëkk a jàpp di rasu di ndengeñ mooy loolu ma xaar ba deuxième action bi ma jàpp ko daan ko. mais foo jëm ginnaaw daan nga ba mu mën kanam waaw yàlla baax na. comme ñan sànq lamb lu ku lamb boole naa bëre moom incha allahu rabbi. aywa yéen rek laay toog. leen di tàggale wooxoo diggante Lat la ak Bouba arbitre bi wax na ak ñoom wax na ak Zizi bu arbitre soufflé na lamb ju neex moo ne ci digg bi diggante Lat Dior ak Bouba exe Lat Dior ak Bouba waaye maa ngi nuyu Mansour borom AIBD yee borom taximan VIP bi am kilim am lépp ndeysaan sama xarit bi man may dem ci waaw mu ko pass bari jom ndeysaan la joor ak buuba oxo buuba la joor jël na ko buuba luy xew buuba sogala na ko exe eh, eh, la joor bañ na def diis buuba la joor ña ñaari xale ay bëre kat lañ buuba la joor waaw waaw la joor a ngi noonu ak buuba exe eh, xale yaa ñaari bëre kat bu ne juróom dañuy oxo la joor ak Bouba la joor dañoo ni àbb doole Bouba mais des na de Bouba mii nekk lëf la de moom Bouba ma ngay roqe suuf moom la joor waaye Bouba ngi ni teg am lu muy am lu mu nar la joor ak Bouba ndeysaan ñaari xale yi ñu si ci digg géew bi arbitre daa suuf la ñu ni curum ñoom ñaar jàkkaarloo waaye ba tey dara moom Bouba ngi lay nuyu ndeysaan Lat Dior ak Bouba eh, jël na ko Lat Dior Bouba leen njargal ndaloog moom wéyale laa ilaaha illallaah daan na ko wuy yaay Bouba daan na Lat Dior oxo xale bi bëre na stade bi yëpp a jug moom Bouba xale waaw xoolal ma Bouba lu mu bëre xeexe xale la xale bi bëre kan xale bii nañ ko bàyyi xel moom Bouba ndaanaan la buy bëre di daanu sax day bëre ba moom Bouba ndaanaan la exe Ndeysaan arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak lim bañ huitième combat de la soirée Ndeysaan jàmbaar production moo ñu fi woo diggante Zoss Ada Fass mooy grand combat bi waaye us garga lañ jàkkaarloo moo ñu wan ginnaaw <laughs> uli gens moo ñu wan kanam ndeysaan us karga moo ñu wan ginnaaw moo xees tent boobe ca kaw ndeysaan waaye uli gens bu yaraax moom lañ jàkkaarloo mu nekk lamb ju neex waaye maa ngi nuyu Bos Couture ndeysaan suma xarit bi arbitre soufflé na eexe diggante Ouskara Ouskarga ndeysaan ak Oli Gels Ouskarga moo ñu war ginnaaw moo xees tent bopp ba hey jël na ko Ouskarga jël na luy xew Oli Gels takk na ko mbot na ko lan mooy xew oxo ñaari xale yaa ngi bëree ma ngay door moom Oli Gels Ouskarga Oli Gels ak Ouskarga Ouss Garga ak Oli Gens ndeysaan oxo Ouss Garga ak Oli Gens Ouss Garga ak Oli Gens ndeysaan diggante us Garga ak Oli Gens ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ci biir géew bi hey jël na ko plaqué na ko lan ma xaw yan na ko la laa Oli Gens daan na ko Oli Gelsi daan na Ous Garga Oli Gelsi daan na Ous Garga ndeysaan daan na ko jël bu rëy exe takk songole ci kaw dóor suuf biij doomu yaraax bi daan bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil sama ñaari waajur bu baax a baax a baax di leen ñaanal gudd fan ak wér ba ñu fekkee lépp incha allah di nuyu sama waa dëkk di nuyu sama waa dëkk waa Morola Pout Randu Fulum tund jandeer bi maa leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu sama waa dëkk waa Dalifort maris maris 1 maris 2 baa ñu fenn waa Pala Jaxaay Jaxaay 1 Jaxaay 2 11 b 12 b bàyyi ñu fenn ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax. combat bi bëre rek mooy li ma waxoon rek làmb laay def damay andi bëre damay andi dóor waaw te loolu laa préparé tamit te moom laa appliqué. non wax dëgg fa yàlla mbër mënul di sama kaw parce que écurie bu kaw bu reen nekk ñoom Antou Ndiaye nekk fa ñoom Valdo ñoom Lion Rouge ay ñoom Ibsa ñoom Caritas xam nga ñoom Saliou kon mbër mënul di suñun ba pare teg si suñu papa Tombe seen nekk suñu entraîneur yaa ngi dégg Jal Diop seeni Mbassa Baaw Baab ñoom ñëpp nekk suñu ginnaaw yaa ngi comprendre Père Modou Diouf nekk suñu président écurie non waruñu mën a doon cuune quoi. yee loolu après dañ koy waxtaanee rek du fi may benn boy kot ñuy xogaliku ñëw leen rek ñu waxtaanee ko incha allah noonu la demee. Diamant Noir moo ñu wan ginnaaw mooy njool bi. Jaasi Pël lañ jàkkaarloo waaye cey Bamba Milano waaye cey Bamba Milano eexee eh, arbitre bi soufflé na Jaasi Pël ak ki nga xam ne mooy Diamant Noir ñaari xale yaa ngi ci digg géew bi waaye ba tey seen loxo laalanteegul lew teeguñu ndeysaan la Jóob Baye Men promoteur bu mag bi. Bamba Milano sama xarit la. nit ku baax. sa waay la man li muy def. ndeysaan moom Bamba Milano ak man làmb. daanaan la moo ngi ñëw. waaye ay combat yim taxawal. dina ñëw leeral. ay xale yim boole. ñu leeral ko ba mu leer. oho leeral lay àndal ci li ci combat bi. at bi suuf la na. Diassy Peulh Diamant Noir. ma indi na Diassy te da koy gor. waaye ndax Diamant Noir dina nangu loolu. Leewtoo ba dig na Diamant Noir dem na léegi dugg ci garde bi Diassy Peulh cokkaas na waaye dalul Fallou ndeysaan Diassy Peulh Diamant Noir Diassy Peulh moom lañ jàkkaarloo Baye Mbène yéexee Diamant Noir moo ñëwoon ginnaaw hey ma ngay dox ci kawam dugg na ci garde bi. teel lamb ji jeex la Diop. waa doole yamul de. suñu jàppoon teel lamb ji jeex. ndax boo xoolee Diamant Noir moo ëpp relance Diassy Peulh waaye Fallou Diassy ndaanaan la. ah bërekat la. yor na ko léegi dugg ci garde bi mais na muy dóoree ndax baax na. ma nee nga jaasi pël. ndax jaasi pël ni muy dóoree baax na Baye Mbène. non li muy xeexee xeex bi baaxul. waaye jaasi pël jamaa noir. jamaa moo ngi seere la pataake bi. ma ngay seere rek. jaasi dugg na ci garde bi génnaat. seere na la bi. jaasi pël jamaa noir. bu ñu congantee làmb ji jeex. ndeysaan waaw mën naa am benn song la de Fallou. benn jooy la. bu neen làmb ja jeex. door mu daanu waaye boo xoolee boo xoolee Diassy Peulh daa bëgg a songu lu mën na cee am door mu daanu mën na cee am parce que garde yi ni mu tegooni nii dañoo a xeex jël na ko lan may xew Diassy Peulh Diamant Noir jàppante nañ Diassy Peulh jàpp na ngeem Diamant Noir jàpp na ma ngay door Diamant Noir a ngay rokas ma ngay door jaasi Peulh xeexee ñaari mbër yaa ngi bëree diggante Diassy Peulh ak Diamant Noir ma ngay puus moom Diassy Peulh Diamant Noir a puus pour mu génn jàpp na ngembu Diassy Peulh am na ngembu Diamant Noir am na ngembu Diamant Noir lu muy nar ma ngay dajale Diamant Noir a ngay dajale Diassy Peulh ak Diamant Noir ndeysaanam Diassy Peulh Diamant Noir waaye faxat émission bu mag bi nekk Leral TV waaye ñu ngi dalal suñu sponsor bu mag bi yéex kenn du moom ci mim réew ndeysaan Tara moto hey waaye Tara moto ku bëgg moto lu baax faaw nga dugg ci Tara moto mu jox la moto bu baax doo ci am lu la metti doo ci am lu la yi garanti bu wóor lay am ndeysaan ak Tara moto ak émission faqat émission bu mag bi. la Diop boo bëggee moto 3 roues wala moto 5 roues demal ci Tara moto. 3 roues 5 roues. lépp mu ngi ci Tara moto. Tara moto waay. moto kenn moom. kenn du moom moom mooy indi moom mooy indi moto baax yi ci réew mi. moto moo fi ne ci loxo jël na ko lan mooy xew rob na ko tànk hey jaasibal daan na ko. jaasibal daan na bi rëy na. waa jaasibal. moo ko mën. Fallou lan jaasibal def. moo moo ko mën. xale bi ndaanaan la de. ba. da ko rob caxabal wéeru ko cabaxal ba ko. añ ko añ ko mu jeex. yow fa saf ko doole ji. mu daan kenn du moom ci biir réew. kenn du moom. émission bu baax bi. daa ñëw si jamono. daa ñëw si jamono en fekkoog Tara Moto. ànd faqat faqat lu faqatul baaxul oh Talamato tey Leral TV oxo Augustin lu filmamul baaxul sama ndaamali waay waay Augustin waay loolu président organisateur moo ko wax dañu wax ne waaw promoteur rek la ñu may ko takkul ah? nga ko takkul benn téer ah la job lamba ngi nii fay nañu lamp yi. Oh. ay xale doo nga nekk ci stade bi. Oh. waaye lamb gi nii Ba. Mansour. Mansour Ba. Oh, doomi père ba moo def. Mansour Ba. teg ci leen Mansour bi ñuy yàqal. waaye xale la day liggéey. day fenul. waa Fass duñ def lii lan la. rek dañuy xool naka lañ mën a defee événement bu mag Siteu Lac de te incha allahu rabbi ñu ngi liggéey bu baax a baax lii du dara. gërëm sénégalais yëpp ñu ngi gërëm amateur yëpp parce que tey ce n'était pas évident yow xam na li ma la wax démb ñoo nekk ba 3 heures du matin di ko lijjanti yàlla baax na yàlla na jàmm yàgg jaajëf. kontaan na ah? dama kontaan. non ñëpp kontaan képp ku nekk si làmb rek da kontaan man xam naa loolu jërëjëf jaajëf maam. yàlla xol lay fay. barke sëñ Tuba bu dee da ngay liggéeyal ay doomu daadama da leen di liggéeyloo seen xol di sedd ci yow wallaahi azim ku la bëggal gàllankoor mooy fay. ma ni jàmbaar ca kaw ci kanam jàmbaar ca kaw ñun jàmbaar lañu bokk tey te dañ ko dañ koy wax mu jëm kaw barke Serigne Touba. Assane Sos ñi ngi jàkkaarloo. sunguf mais Cheikh Cheikh soo sàmm doole. liggéey na Ada Fass liggéey na Ada Fass jaay mi ngi nekk mag bi. ndeysaanam dara du leen rëcc tey si journée leen wan lépp. wan leen buntu stade bi. wan leen dugg si mbëri wan leen tuusi ñaari mbëri Liss Ndiago Liss Ndiago nee na ñoom ñaar soxla na leen diggante Zoss ak Ada Fass hey Liss Ndiago Ndiago noonu Ndiago or bi Ndiago sampoñ nan di Ndiago or baa koy jaadu na sampoñ nan di Ndiago or baa koy filmé jaadu bi wax ndeysaan ci digg géew bi diggante ki nga xam ni mooy Ada Fass ak Zoss waaye maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu Bos Couture sama xarit bi Mansour borom AIBD paas bu bari la ma jox ne ma dawal Tiwaawan yàlla sa jàmm yàgg borom taximan VIP bi loo dawalul baaxul. waaye Augustin ñaari xale ci digg géew bi diggante aada la ak Zoss diggante mag xale la jàmbaar production mooñ fi woo ndeysaan luñ tëgg mu neex ñoom wa waa jàmbaar ay xale lan arbitre bi soufflé na aada fa Zoss ndeysaan dimanche le 8 octobre fii ci arène nationale na jàmbaar production ngeen ci ànd ak leeral oho ak émission faqat émission bu mag bi Augustin moo nekk ci caméra bi ñaari xale yaa ngi lewtoo lewtoo ba dig na ndax aada day dem ndax sos day dem waaye nañ ñoo ni yàgg waaye Boss Couture maa ngi lay nuyu du taay di ko wax fu ma ne yaa ngi sama wet ndeysaanam oho waaye tey le 13 janvier diggante Baba Jaxal Ibou Afia woo woo woo yaaram aar la luñ tëgg mu neex ndeysaanam Zoss dagg na lewtoo bi taxaw aada aj na garde ca kaw nax day songu tànk bi jege na lool aada ndax da sexal Zoss hey Ada dugg na ci garde bi génnaat Ada door lekk ku bu Ada dagg na lew too bi toogal oho Ada Fass Zoss Mansour borom AIBD hey Ada mbed na Zoss rëpp looy xew hey Zoss jël Ada Fass Zoss Ada Fass Zoss jàpp na ngeemu moom Ada Zoss am na ngeemu ñaari xale ya diggante Ada Fass ak Zoss Ada ak Zoss Ada jàpp na Zoss jàpp na Zoss am na ngembu hey Ada fàq na ko luy xew dara xewagul Ada fàq na Zoss Zoss bañ na Ada Fass rof ko tàng Ada Fass daan na Zoss Ada Fass daan na Zoss ko jël bu rëy gon ak Fass gi daan na gon ak Medina gi daan waa Fass usik sen Ada daan na jël bu rëy xoolama waa Fass daan na jël bu amul benn werante waaye Zoss dem ritewul ndax bëre na ndax na luñ doon xaar gisuñu ko Ada Fass daan na Zoss Ada Fass na Zoss jël bu rëy waa Fass yi jug nañ jëmu nañ waa dafa métti lu nekk lu ne ñu dégg lu ne mun na màgget na à cause un mois mu travail lu toll nii am blessure bu métti déet kay mbagg bi épaule bi blessure bu Ah, non wax baaxul mais kii kenn du moom. père nan ngeen indi ah Ada Ada li koy liggéeyal man maa ko xam ak moom. mu nekk sa doom yàgg si yow. wóor na yàlla foofu la ma teg papa la ma jox. te dégg naa da nekk si blessure. waaw ba fii may waxee yow da tawat. wóor na yàlla moo tax toogu ma. mais nga ànd moom ci diira lamb ji. mu ne ma papa ma ne naa mu ne ma boo ñëwul du baax bul toog mais ñëwal xool ma ma xool la. xool naa ko yàlla may na ko ndam loolu laaj soxla kër su aada bàyyi noonu Augustin léew ma fi amoon fii ci Leral TV ak émission Fakhat waaye Augustin loo filmé wul baaxul fii la xewe woon jàmbaar mooñ fi woon jàmbaar production combat bu mag doon dox ci diggante Ada Fass ak ki nga xam ne mooy Zoss ñu bëre ñaari mbëri jàppante xeex Ada déglu ko jox ko cër lool ndax Zoss a ko jiitu ci làmbu ñu dogale bëre Ada jàpp ko lambu ja jeex mu foog ko wër ko ñu dëpp ci suuf Ada Fass daan ko loolu moo fi amoon jàmbaar production woowoo ñu fi mu nekk lamb ju neex démb lamb ji ñëpp dañ ni woon ndax dina am tey ku ñëw ci làmb ji xam ne lamb ji neex na tey félicitation jàmbaar production félicitation Mansour Ba félicitation équipe bu jàmbaar production waaye aussi c'est ma lay wax ni émission bu mag bi fàqat lu mu fàqatul baaxul leeral TV télé bu mag bi na ñëpp bàyyi xel xippi seen bët di xool ay xale fa ne télé xale la ay xale fa ne ay xale koy doxal loolu doxalul doxul may nuyu nag sama doomu nday Mansour borom ay BD ko gisee kooku sama nit la sama xarit la waaye maa ngi nuyu xësaa Boss Couture fu ma nekk mu ngi sama ginnaaw waaye di jox rendez-vous yaaram aar dafa tëgg lamb ju ma diggante Ibou Afia ak baaba Jaxal fii lay amee arène nationale le 13 janvier nañ ko waajal Ousseyn Fakkat ak Leral TV Ousseyn dem naa dem naa jëli naa Fallou doxalal yaa mën <laughs>